amoon amoonug dégg ci coronavirus bi te jotuñu woon seen wàll far nan ko jot ubbil yéenekaay bi ginnaaw yokkute gekk watatu gu metti gi coronavirus bi nekkee fii ci biir réew mi far na law nag ba egg ca dëkk bu sell bee di Tiwaawan vox populi nañu benn marchand ambulant moo jóge woon Touba doon tag-tagaan ci dëkk yi ba eggti waawoon moo fa dugal jàngoro ji ca noonee ca la gisanteeg boroom jakarta fa la ko yabee ba fay ko juróom benn junni waa ji yab ko ànd ak moom ñuy teggeeka tag-tagaan jaar baa mbay tul ba dugg Cees ca noonee ca lañ teereti waawoon quartier ba mu nekkoon ca Tiwaawan sax ndawi dëkk ba ñoo ko joto boole ndax nee nañ ca loolu ñu gis moom dalul seen xel waaye waajoojee jot na ko wàllu toll ci fukki nit ak juróom ba ñooñey sax ña ngi ca lali hôpital yi ñu quarantaine leen taalibe Maodo si ñoom mer nañ ba futu ci l'état du Sénégal ndax nee nañ bu defoonub liggéeyam waajoojee du dugg ca dëkk ba ñu àndandoo defub taxaw seetlu akub jàngat bu mat sëkk ci bakkan yi ñu coronavirus bi joto jëlal ubbil yenekaay bi soo boo xun ma coronavirus bi noonee ci la la Soleil yéenekaay xëy di mooloo covid-19 bi ba noppi teg ca naan wuyaay yooyu virus bu bon bi jëlal nañu ko kan lañu jëlal Soleil national nañu mooy ma Pape Diouf ñu gën koo xam ci Pape Diouf moom lañu corona bi jëlal Libération jëlaat kàddu gi tegal ñu ci naan ñu Pape Diouf kat moom la coronavirus bi njëkk a faat fii ci réew mi la Quotidien mel na ku koy feelu naan ko man day ñàkk kerse gi corona coronavirus bi ñàkk kersa moo ma jaaxal ndax moom xàmmeewul borom dooleek yeggale wax ji ne ko bu ko xamoon kat duñu jëlal suñu Pape Diouf mi Pape Diouf moomee nga xam ne moo nekkoon président olympique de Marseille ba woon le quotidien ne ko bu fi yemoon sax mu neex waaye defu ko ci guddi aljuma yemoon ñetti fan ci weeru avril Sénégal ñàkkaar na kaneen muy génn soxna ju làqoon lu toll ci juróom fukki at ak lu tegal fële ca hôpitalu fan journal bi ne ñu moom day sax li ñu gën a jaaxal mooy dafa mel ne paa yi rek la gën a topp ndax jëlaat na Ziguinchor ci bisub aljuma yamook fukki fan ak juróom ñaar ci weeru avril mbir yi nag ma ngay bëgg a takkar naasa ndax ci bisub 20 avril Sénégal ñàkkaat na ñaari néew ndax ci waa ji dëkkoon Kër Masaar làqoon lu toll ci juróom benn fukk ak ñett at ñu teg ci simili xibaar ba jubaat fële ca opitaalu Fann ci waa ji làqoon lu toll ci juróom fukki at juróom avant ñuy denc suñuy néew ci bi ñu xëyee ci bisub talaata yamook ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril Sénégal ñàkkaat beneen néew fële ca Louga koo xamul noo koy def nam la defa tax waaye ki kenn xamul nuñ koy def mooy coronavirus bu bon bi ku mënul bawoo lu yàqu ya wax waaye kenn du duñuy jéemantoog man-man lu di jël saa boog zel yi di ko jël di ko raxasoo ci yoo yee sax day ku yabutee ci ndax zel yooyee am na ci yoo xam ne saafara ju jur jàngoro lañ baaxuñ ci góor baaxuñ ci jigéen bu fekkee ci góor ñi dañuy wàññi seen qualité espérale bu fekkee ci jigéen ñi nag moom dañ leen di jural ëmb bu tuuru gan gi daan ñëw ñëpp di ko tatagal ak di ko taf ci seen dënn ndax màggaayam ak barkeem mubaarak tey nag ñëw na kenn talu ko benn fanu weeru koor gi wex na xàtt ci askanu Sénégal rawatina ñay yeewoo ca dëkk bu sell bee di Touba soxna ya nag ña ngay woote wàllu ci l'état du Sénégal ci tëju marché yooyee ndax nee nañ kër amuñu lenn lu ñu xëddee waxuma laak nag lu ñu ndogoo la ca gën a yéeme nag mooy woor ba ngoon